asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi siyaare Seydul Muntaqa ak mboolem njaboot gi ci ginnaawam te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ñaanal mbooloo mi topp ci ginnaawam ba ñu doxal ci ay ndigalam buñ ko defee ñëpp liñ bëgg danañu ko am tey ñaan lépp lu mu yéene ci lislaam bi ak jullit yi ak réew mi yàlla defal ko ko te dana ko def ndax sëriñ bi nee mahawta qasda durri lii bil muntaqa loolu kon noonu ñëpp a ngi ci biir kon ñoo ngi sant yàlla mu ni digal ñu topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax na bu ngeen ko toppee da ngeen am teraangay tey ak ëllëg wax ma ci lam yonent bi nenu ñi nga xam ne ñoo topp ñooy topp sunna ci waxtu dem dayo gi jamono dem dayo def ni loolu fulal seeni yool def na leen fay seeni jëf moo ngi seeree ne lislaam yàlla ko wàcce jaarale ko ci yonent bi yabal ko mu dikk leeralal nu ko te sant nunu di ko jëfe hmm. gannaaw loolu bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi dénk suñ bopp di leen dénk lañuy jëkk ña dénkoon seen ñooñ te yàlla wax ko ci alquran wa laqad wassayna alladina utul kitaab min qablikum wa iyakum an ittaqullah ragal yàlla googi noo ngi koy dénkaane ragal yàlla nag waxin la ci topp lépp lu yàlla digle te wattandiku lépp lu mu tere lépp lu yàlla digle nga def ko te ci bàyyi dara lim tere bu ko jege fenn ci sa pas-pas ak say wax ak sa jëf ci biir ak biti nañu xam ne àdduna du karuk saxuwaay dañ fi romb rekk kon nañ waajal ëllëg ndax ëllëg soriwut yonent bi sallallahu wax na ne na ngeen baril fàttaliku ëllëg ndax ndax ngeen bañ di jàng jëm ci tey ndax tey bisub jëf la ëllëg bisub fay la tuluwaay def moo xam aw yuu la walla leneen danga ko fa fekk ci ëllëgee fa suñ kon nag bu nu àdduna wor bu nu seytaane wor ndax yàlla lam dil lam dële danaam innamaa tuudoon la aatin wa antum mujizuun te mënu noo raw yàlla fenn te li mu digle dana am li ñuy tënk ci xutbam ñaareel bi moo di ñoo ngi sant yàlla muy jéggale bàkkaar yi di suturaal ayib yi di nangu tuubi yi di ubbi bunt yërmande yi di seere yàlla mooy yónni yonent bi def ko muy xaatimu anbiya te it caabi yépp yiw la sallallahu alayhi ginnaaw loolu ñun bokki jullit yi bokki taalibe yi képp koo xam ne bëgg nga fa ñu baax ña nekk nga ne fa di dund ci leeru yàlla na nga ragal yàlla na nga baril na nga baril salaatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moonu ko digal ngir ñu am yool yu mag yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla ko wax nañ dundal weer wu mag bii ci yiwuy topp yàlla ak lépp lu jàppandi ci aw yiw ci suñ kam kàttan ñu di ko def yonent bi sallallahu wa sallam wax na ne àjjana ubbil naa ko bépp tuubkat yërmande yi buntu ba tuub jëm ci yàlla nag mooy caabi ji yërmande ji nga xam ne ci la ab jaam di jaar ci àjjana àjjana mooy yërmande rek dellu ci yàlla subhaanahu mooy laltaayi jaamu yàlla jaami yàlla yëpp jaamu yàlla yëpp yu ñu di ko def ak jegeñ jegeñ lu gu ñu jegeñ lu yàlla dellu ci yàlla moo nu koy may te loolu musta dañ di yoon wi nga xam ne gaa yu baax yi te lañuy jaar di dem ci sun boroom di dund ci ay laara di ca naan aarifuuna billaahi yi ak war way ragal yàlla yi ci loolu yi lañu nekk te ñoom dañuy toroxlu jëm ci tuub ak jéggalu di tàllal seeni loxo ak jëme ci yàlla di di ñaan ak a tuub sun borom wax la wax na ne wa yadunana raxaban wa rahaban wa kaanu rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim yàlla yàlla nag nu nangul yow mi aji dégg ji tey aji xam ji nanga nu jéggal yaay jéggalekat bu mag bi na nga nu yërëm yaay aji yërma yërëmi ji loolu lañ tënkoon ci ñaari xutba yi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin amin